c'est la référence. ñun ñëpp ay nit diine lañ ñëpp fonk diine waaye diine itam dafa am nu mu su demee ba nit ñi war a loru su boobaa am na ay yoo xam ne yàlla daganalal na ko jullit ñi pour ñu def ko te yonent bi wax ko nañuy moytu itam sabab yëpp nañ ko topp ngir mucc comme tudd nañ set te set ci boppam ci diine ji la bokk ndax julli sax boo doon julli ji mënoo julli te jàppoo sa cër yooyu ngay raxas dana setal sa cër yooyu yëpp te loolu su def nga ko juróom yoon ci bis bi wala ñetti yoon lu tuuti tuuti mooy mbuus la kon na kon nag nañ ko topp gel yi ñu koy def ci loxo yi nañ koy def ci loxo yi joxante loxo bi itam su demee ba nekk lor rek ñu bàyyi ko moo gën axafu dararey ni toujours bu ñu dajee ñaari lor suñ tasee bi gën a oyof la ñuy bàyyi bi gën a oyof mooy joxante loxo beneen lor bi bu ñëwee fitna la bu rëy boo xam ne nit ki lu ne dana ko daj ay mbokkam danañ ko daj nguur gi danañ ko daj kon nag nañ seet bi gën a yomb mooy ñàkk joxante loxo te du tere ñu nekk ay jullit du tere ñu waxante asalaamaaleykum alfayda c'est la référence. salaamaaleykum mbokk yi yéen itam Alfayda la référence internationale dal leen ak jàmm ci xabaar yi bu ngeen taaxiloo tuuti rek ñu jukki leen ci gën a fës. bokk na rek ñetti nit ñoo ñàkk gum seen bakkan ci jàmmarloo yi am démb ci biir dëkk bi ñaar ca diwaanu Ndakaaru kenn ca diwaanu ah, Bignona préfet bu Bignona nag jaaxee na fa di woote ab dal xam le itam ne ubbi nañ ci ab enquête ca Touba Mbacké yi itam ab jàmmarloo gu métti na ci diggante ah, way takk der yi ak ñi nga xam ne rek ñooy daal di nañ ko fay teg euh, loxo lépp rek tënku ci coowal Ousmane Sonko jàpp gi ñu ko jàpp laaj gi sapp nag jamono ji mooy ana lan moo soppeeku ci réew mi ba ab plainte indi jee ji ni mel soxna Ndeye Fatou Cissé def na ceeb jàngat bu yaatoo yaatoo ci wowle waxtu commerçant ya takkee ci kuréel ga ñu duppee assise ñoom it ña ngay laajte ana ban njëriñ la tëj marché am ci xeex gi ñuy xeex mbas mi di coronavirus li leen ci gën a jaaxal nag mooy ca marché a a jaar ba am ci ñàkk yi daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane euh, Diagne groupe sunu gaal la mu bëgg mooy yemale diggante dëkku taax yeeg dëkk kaw yi gën caa fës nag ci wàllum euh, xëy ngir ndaw ñi am ci lu ñu euh, jàpp gannaaw a enquête ak càmbar bu yaatoo yaatu nag indi nañ projet du peeku rek Agri Jeunes tekki ndaw ñi lëkkaloo ci ak seen ay partenaires di waa FIDA ak Banque africaine de développement def ci ay milliards yu takku takk toll ci juróom fukki milliards ak ñeent mu nar a dem ba juróom benn at xamle nañ ko niki démb nag ak kilifa yi ci Kaolack ca salle de conférence bu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 dal leen ak jàmm mbokk yi yéen itam Walfayda FM la 90 international ngir ay xabaar yu leer te wóor kàddu gi di bàyyeekoo fii ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Alima Mar Lo El Hadji Libaas Mbaye moo jonok man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg ma di leer dañ koy euh, ubbee moom bi la jotaay xabaar ci coow li nga xam ne rek ak jàmmarloo yu métti yi nga xam ne rek am na ni kii démb ci réew mi gën caa fës nag ca diwaanu Casamance ba benn xale bu góor daal di fay ñàkk bakkanam gannaaw ñaar yu ñu jot a ñàkk seen bakkan ca diwaanu Ndakaaru préfet bu Bignona nag xamle ne nañu ubbi nañ ci ab enquête waaye itam di woon ndaw ñi ci ab dal Babacar yi ñu teewlu ko. xale yi ñu ngi manifester fii ci na ci affaire boobu ñu tuddee affaire Ousmane Sonko Adji Sarr ci manifester démb yi sax ci lañu attaqué sama kër yàq kër gi ak sama oto tey tamit ci suba ñu continuer manifester yi attaqué ay édifice daal ay pëna ci kaw loolu nag mu am ci benn manifestant boo xam ne jëlee na ci ay gaañu gaañu sapeur pompier jël ko yóbbu ko centre de santé bu Bignona bu mu àggee foofu nag wala ñàkkee bakkanam ñu koy jaal famille am yëpp di ko jaal waa na yëpp population bi yëpp ñaan tamit euh, population yi rawatina jeunes yi ñu dal di leen lancer un appel au calme et la sécurité et à la sérénité parce que force de défense et de sécurité yi dañ fi nekk pour aar njaboot gi pour aar population yi aar tamit seeni bien kon nekkuñu seeni ennemi au contraire guddi ak bëccëg du ñu nelaw du ñu yendal ñu ngi ci besoin population yi na enquête euh, bu ñu ubbi gendarmerie ubbi na enquête pour élucider les circonstances euh, de son décès enquête boobu moom rek moo ñu mën a révéler les circonstances exactes de son décès kon rek ñu xaar ñu ñëpp les résultats de l' enquête waaw euh, autorités yi am nañu fa dem famille bi aussi jokkoo nañu ak ñoom ki nga xam ne mooy papa yi xale bi déjà ku ñu xam la suñu wëllëre la waxtaan nañu ak moom jaale nañ ko dem foofu tamit xam naa incha allah dina am bu soobee yàlla Diourbel foofee itam ab professeur bu faree ci parti Pastef moom it daal dinañ koy teg loxo ak ñaar fukki ndongo ak ñeent yay jàngee ci lycée Cheikh Ahmadou Bamba gannaaw ba ñu wàccee ci mbedd ma ñoom it lépp rek tënku ci jàpp ñu jàpp Ousmane Sonko ak coow li Mamadou Moustapha Mbaye ni kii ni nu ko seetloo ci yeneen dëkk ci biir Sénégal ci diwaanu Njaareem coowal Ousmane Sonko ak jàpp gi nu ko jàpp daal dina yóbbe yenn ci ay ndongo nu génn ci mbedd mi doon na xeex ak ñi nga xam ne ñooy way takk der yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba Bamba bu njaareem ñoom ñu ngi génn bi nga xamee ne fukki waxtu jot na yore seeni xeer waaye taal ay pono xeex ñi nga xam ne ñooy way tekk dere xeex bu nga xam ne yàgg na lool doon te gis nañu ne que amul kenn ku nga xam ne jëlee na ca ay gaañu gaañu ndongo yooyee bokkoon na ci leen merloo jàpp gi nu jàpp Ousmane Sonko waaye it teg loxo gi nga xam ne teg nan ko loxo Abdoulaye Thomas Faye Abdoulaye Thomas Faye di ab professeur économie familiale nekk fi nga xam ne moom mooy lycée moom ci jëmi boppam dañu gis ne dafay ku nga waaye yëngu gim ci yëngu daal mel na ni kon def ci xaw a jigg dayoo ñu bari gis ne kon loolee tax waa police ci boppam teg ko loxo moom mujjun ko bàyyi waaye waa police jotoon nañu jàppit yeneen dongo ñu tolloon ci ñaar fukki élève ak ñeent ñooñee mujj na leen bàyyi ci ngoon na Mamadou Moustapha Mbaye Diourbel Alfayda FM. jaajëf Mamadou Moustapha Mbaye dañuy desandi foofee ca Mbacke dem xooli euh, président conseil départemental ba moom ma ngay woo waa sunu gaal ngir rek ñu bokk ci xeex bi ngir mën a sàmm suñu démocratie ak wax njiitu réew mi Macky Sall ne doy na ci faaga faagaagal gi muy faagaagal yenn ci ay l'opposant waaye itam ñaawlu coupé gi ñu si coupé signalu Walfadjri ak Sen TV ñu teewlu ko moom Fallou Mbacké ci micro sa Moustapha Mbaye mooy lépp li gànkal man démocratie mooy jàpp ay opposant gis nañ ci ku mën a Karim Wade ku mën a Khalifa tey jii tey mu jóg pour song le président Ousmane Sonko loolu nag la ñu wax ne du fi mën a am tey du fi mën a am ëllëg benn Sénégalais wutu mën a accepter que président Macky Sall mbir mi jëm ci Ousmane Sonko mbir mu jàll kon ñi ngi woo képp ki Sénégalais képp koo xam ne démocrate Sénégalais yi ma yite na la nga jóg bokk ci xeex bi ñun fas nañ yéene bokk ci xeex bi ak ñu ñu àndal du wax ne Macky Sall réew mi moomu ko daa fekk ñu tabax ko liggéey ko joxoon ko ko kon nag buy dem di génn Sénégal dafa war a bàyyi réew mu am dal mu am jàmm moom la ñu te moom la ñaan waaye nag kon moom dafa décidé moom ak ak àndal doxalin buur maanaam moom ak njabootam fas moom nee na mi du fi jógee ndax lay préparé loolu la wax ne nag bépp Sénégal yoo xam ne ni démocrate nga wala jàmm moo la yitteel war ngaa taxaw ci wax Macky Sall na taxaw ci li nga xam ne mooy projet politique bi nga xam ne mooy di faagaagal ay opposant di bañ mukk dem élection maanaam ànd ko ak ay mbër yoo xam ne ni dañ ko mën a lañ xamoon suñuy waajur nit ñu baax ñëpp loolu lañ xamoon ñoom muy ak bañ ak nooteel te lañ gis tey ci Sénégal ak nooteel lañ gis ci Sénégal te loolu passé woon nañ ko te loolu mënut a am Sénégal duñ ko may Macky Sall duñ ko may keneen ku yàlla bind kon lii mu teg président Ousmane Sonko na ko teggi bu ko tegg wut réew mi dañ dal ca kanam loolu mooy wax ji te Sénégal yëpp ñoo taxaw pour fépp pour wax ne lii na doy lii na dakk nañoo coupé signal wal fajari bi loolu encore muy loo xam ne nii ñu naqaruloo di ko ñaawlu ci liberté d'expression ak démocratie ak liberté d'opinion fu ñu toll ak journaliste yi li ñu ci Sénégal bu démocratie am Sénégal tey Macky di coupé le signal de wal fajari loolu ñu ngi koy naqarlu fu naqarloo mën a àgg di wax waa wal fajari ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di xeex bi suñ xeex bi ñu ñëpp la seen TV tamit wax nañu coupé nañ ko loolu kon li ñu wax lépp am na Macky Sall fi mu jëmee Sénégal kenn xamul fan la di def loo a am euh, di président conseil départemental bu Mbacké fii ci Kaolack itam bi ci guddi ndaw ñi wàccoon nañu ci mbedd yi doon manifester ay pono bokk na ci route nationale bi tolloog P12 lycée technique jàpp buntu marché Ocas taxawaayu takk der yi tax na ba ndaw ñi daal te deltu gannaaw donte nag am na na ci ñoo xam ne jot nañ leen a teg loxo daan ci dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaay xabaar ña ngay wéy itam di xam le ne daañu lu amul benn yàq ak ñu yenn ci ay député ci ab janoog taskatu xabaar yi ba ñu amaloon Pape Simaxa ak Cheikh Ababacar Dieng boo mooy li ngeen gis nii rek xam nga ku ci nekk dafay am li nga xam ne moom ngay opté donc kenn rafetlu ko mais ñun ñi nga xam ne tey mooy sàmm suñu démocratie ni ñu xeexee mooy fexe ba suñu démocratie gën a mën a ñoŋ duñ ko def ci wax mais nag lépp loo xam ne suñu constitution may nañu ko ñun dinañ ko def mais nag am na ñeneen ñoo xam ne opté leneen aussi loolu peut-être ñoom la mooy comme li ngeen gis Ziguinchor comme li ngeen gis Dakar comme li ngeen gis feneen comme li ngeen gis Kaolack rek voilà donc mais ñun lépp loo xam ne rek jóg nañ taxaw pour xeex ko pour que suñu démocratie gën a mën a ñoŋ parce que nag cette dictature debout waxuma sax rampante mais debout mais lii dafa la doy lan ngaa mucc benn jigéen boo xam ne tey tekkiwul dara def la ko yenn affaire yi deux morts deux ak luñ fi yàq yëpp est ce que na ko Macky Sall faluñ ko pour muy torturer les sénégalais dañ ko fal parce que amoon nañ yaakaar ci moom pour mu changer condition de vie des sénégalais mais aujourd'hui ñi nga gis ci mbedd mi ñëpp mooy ay sénégalais yi nga xam ne tey seen yaakaar dafa tas si réew mi te nag wax ba dëgg yàlla lu fi xew kenn mun la wax lan la ba pare nag am a député yu ñàkk jom ñu si mel ni aji mbergaan kanute ay awa xool problème mu kaw la taxaw ñu dem di comploter langaamu ci benn jigéen jigéen boo xam ne tekkiwul dara muy Adji Sarr mais ñii man est-ce que mérité dëkk Kaolack tey seexal l'islam wala ñeneen ñi wax dëgg yàlla dinañ am gàcce ci suñu doom yi nga xam ne ñooñu toogal ci peccum ndaw réew mi tey képp kuy Kaolack waa rek am moom tamit war nañ wax ak moom parce que lii yëpp ñoom ñoo ko sooxee mais nit ki convoqué nañ ko mu ne dina dem uyu ji mais foo monsieur gis ku ñuy convoqué nga war dem uyu ji mais même Cheikh Babacar gis nañ tey lu fi xew ba pare ñu kidnappé Sonko. leneen li ñuy sàkku nag mooy ñëpp wàcc xeex waaye itam ànd ak di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ngir mu tekki ndombol tànkam ñaaw lu itam bunduxataal ga ñu jàpp ne ñu ngi koy bunduxataal taskatu xabaar yi Pape Simakha ba léegi ak Cheikh Babacar Dieng. mais gis ngeen ko mais population bi ñoo wàccal seen bopp nit ñi ñoo sonn nit ñi ñoo sonn am ay politiciens yu ñàkk jom ñu nekk ci dëkk bi ñu ñàkk jom la naka wax ne na démissionné pour apaiser tension sociale bi na bàyyi nguur gi parce que mënatu la dem ci situation bi te askan bi taxaw nañ doon benn say nous allons résister nous allons résister na askan bi yëpp jóg taxaw ñu bañ a yàq suñu démocratie parce que nag salfaañe nañ ko ci réew Macky xoolal télévision yi coupé nañ seen TV coupé nañ Walfadjri coupé nañ 2STV mais léegi nag est-ce que Macky Sall ko doon xeexle média yooyu si lañ bokkoon te a démettre parce que soo demee bay et décharger sur les journalistes te ñëpp xam nañ ne tey Macky su accès fii journalistes yi ñoom ñoo ko joué kon presse bi tey war leen delloo njukkal parce que nag ñi nga xam ne gaañ nañ leen si même guerre yi gën a tàng on tire te loolu moom ñun lu ñuy déplorer la te nag man mi tey oo nañ ma di ma de mort des gens de l'APR oo ma ci numéro inconnu sama staff yëpp gis ngeen ko gars wax nañ si mais nag ñun duñu reculer on yota non ne loolu la ñu opté mais responsable dinañ taxaw wax dinañ yee nit ñi dinañ oote à la résistance loolu suñ constitution moo ñu ko may keneen na ko opté leneen kooku ñoom la. Pape Simakha mi ngi noonu coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr ay gi nga xam ne rek jur na ci uh, réew mi ba indi sax ñàkk kóolute ci diggante askan wi ak justice su réew mi nga xam ne rek ñi faray ci Sonko ak ñenn ci askan wi ña ngay wax ne rek ci waawu nguur gi képp la ñuy wéy delloo démocratie réew mi nag fa mu ne woon ak jàmm dellu siwaat ci réew mi ana lan moo ñu koy mayaat njàngat léegi soxna Ndeye Fatou Cissé Voilà, c'est ça. Prenez ça. Avancez, avancez. Allez, avancez. fekke goo gis tala koy mottali te yedd nag yërëm ak a gën waxi mag la Sénégal di wane boppam ci ay ndawam waaye du ñoom rek ay mag di ay responsable boromi ndomboy tànk comme ni ñu koy tuddee ña nga ca biir muy ñi feeñ ne dàng mbaa sax ñi nëbb te di ko defee neneen résultat ba ñu bëgg nag ñu ne di gañe ab combat bu ñu sumb ngir delloo démocratie fa mu nekkoon sa bi nekkul moomee fu kenn waaye askan wi rek war ko yitteel te ñiy manifester jàpp ne njiitu réew mi di président Macky Sall ak ñi mu àndal dañu ca teg loxo abal ko ay bët moom justice ba fu leen neex rek lay xool. ndax réewum Sénégal jàmmaka ak kaaraange gi ko àdduna xamee te taxoon nag ba mu mësatal teraanga gi ay doomam yàgg tiitaroo dañuy mujjeetu mu ndax jaay doole yéeg ci kaw ne nongu mu neex lool nga jàpp ne wàcc moom mënatu la am ak lu mu mëna jural askan wi ci fitnaak coono egg sax ba ci jéyeegu kenn xamul fu muy mujjee ay laaj la police gendarmerie mbaa sax justice sa bay eggale seenub liggéey du ndey waaye tamit euh, du bàyyi kenn ku fa ne lu ñu yàgg dégg la file ci Sénégal loole nag la muy und weesuwul ne bërëb yooyee kumba am ndey ak kumba amul ndey waru fa am benn yoon dëgg rekk moo fa war ni faax lu soppeeku nag tey file ci Sénégal ba plainte jur bile fitna ci réew mi di lu jara càmbar euh, waaye ak lum si mën di doon force moom euh, doit toujours rester à la loi ndax loolee nag mooy base u jàmm ak kaaraange gi nga xam ne nag du Sénégal rekk waaye dëkk bu ne moom nga war a soxla. yéen gi ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñaareelu pàcc bi junjoon nañ leen ko ci bopp xabaar yi kuréel gu ñu duppee assise takk ay commerçant ñoom nag ña ngay sàkku ci nguurub Sunugal ngir mu ubbiwaat marché yi muy tëj dimanche bu jot ñeel xeexu mbas mi di Covid 19 ña nga ci woo gornoor bu Kaolack Cheikh Tidiane Diagne. ngir xeex mbas mi kilifa yi dañoo jàpp ne tëj marché yi am na ci waar wu yaatu tax na yenn marché yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi dañu koy tëj ak anam gu ñu koy tëjee fii ci capitalu Saloum diwaanu Kaolack moom dimanche bu nekk dañuy tëj marché bi lu mel na ko commerçant yi nga xamante ne ñoo bokk ci association de commerçants industriels du Sénégal di ACIS nee na ñu du dëgg du yoon tey ki tey nag jot na ñu tijji marché yëpp ñëpp jaay ni ñu war a jaayee Matar Gueye mooy coordonnateur bi ci Kaolack. tijji marché yi ban njëriñ la am ci xeex bi ñuy xeex corona bi kenn du la ko wax question boobu léegi maa ngi koy posé mais kenn tontuwuma ci ça dire que kon jot na pour que ñu bàyyi nit ñi ñu dem liggéeyi waaye ñii li ci gën a métti mooy dañ naan ñu bàyyi leen ñu liggéey par exemple tey marché au poisson dañ leen di bàyyi ñu liggéey marché Mérina ak marché bu am na ci yenn grande surface yoo xam ne mais ñu ngi ubbi léegi ñu bëgg a bàyyi ba euh, jël commerçant yi nekk ci biir marché central ak li ko wër ne leen yéen du jaay dimanche loolu teguñ ko fenn ci vague bu njëkk bi nag ñu fàttali ne marché yi ñu ngi ko doon tëj digg bëccëg gu nekk yemoo ko ñaari waxtu ci ngoon gi ñaareelu vague bu covid kilifa yi dañoo jël dogal di ko tekk dimanche bu nekk li nag ndërmeelu gu mag lay jur ci wàll ko koom ci Kaolack yépp

autorités yi dajuñ ko ci mais quand ñu xam ne ñun sonn nañ ci xeex nañ ci dañu xam ne ay citoyens sénégalais lañ commerçant ngi ne li ñu bëgg mooy ñu ubbi marché yi ndax mbas mi nekkul ne ci barab yooyu lay jaar te ñi fay dem di gëndkat yi ak ñi leen di jaay ñëpp ñu ngi respecté digle kër docteur li leen jaaxal tamit moo di ñàkk yi dégguñu benn yoon buñ ci tuddee ne ñi nekk ci marché yi dinañu leen ñakk te ñoom xamuñu fan la ñuy jaar ngir pingu joxalu cër Cheikh Tidiane Diagne leneen lu ñuy ñaaw lu mooy doxalu nu maire ba ñu jàpp ne deful liggéeyam na mu waree local yi dem ba jàpp ni sax jox ñu leen gëdd bi war waaye ndax ba ñu ko tàmbalee tëj ba tey ji mës nañ ko raxas tontu leeg Matar ko raxas keroog bañ koy wax tere ñoom xamoon nañ ne ñu doon wax noonu bañ koy wax it ñoom lañ waxoon mais bañ koy wax ñun ci suñ bopp xam ne ñii li ñuy wax amut te bu boobaa duñ ko def d'ailleurs preuve baa ngi nii ñaata dimanche ñi ngi tëj boobaa ak léegi da ngaa gis benn a def ñoom musuñ ko def mais laaj koy dépensé mais préfet dafa am lu mu ko dépensé préfet salaire am am moo gouverneur yi kon ñoom bu ñu waxee ne dañuy raxas marché bi tamit yaakaar naa ne bu ci mairie bi taxawul du sotti te mairie bi taxawu ci jëlu ci benn engagement maa man boog dégguma ko fenn looloo waral tey fi mu nekk marché bi munu boobaak léegi ñu ngi koy tëj amul benn bés buñ ko balee bon la bëre daaluñ ci tous kani moom ba koo laal dañuy bàyyi ba nga xam ne nawet bi ñëw na ba taw ñaari taw ba mu commencé inondé ñu commencé dugg ne dañuy kiire kaniwoo yi buñ kiiree benn ñaar fa lay yem même problème bi moo resté marché bi moom wax dëgg yàlla muy les autorités municipales muy les autorités étatiques cër bi ñu ko waroon a jox moom dëgg dëgg joxuñu ko man jàpp naa ne jàppuñu sax ne ay sénégalais lañ kon bu léegi ah mais effectivement amul xam ne moom la élèves yi ak étudiants yi di def dajaloo di loolu moo a të waaw mais ku nekk xam ne ne lii ñu def nii teguñ ko fenn fudul jàpp commerçant yi dong loolu dong la du leneen man di gisuma leneen wax dëgg yàlla ñun daal li ñuy xaar fi nekk nii assise nationale ñooy suñuy kilifa suñu waxee def ñu def bu ñu waxee bàyyi leen ñu bàyyi waaye li leer ba leer mooy forfaiture bi moom am na fi mi nii yéen ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñetteelu pàcc bi ñu ngi ko jagleen mbiru xëyum ndaw ñeeg wàllu jàppalante ak dimbalante te jii nag euh, daañu leen xamale que centre ba ñu duppee centre d'incubation ba nekk ca chambre de commerce li gën a fës ci li ñuy liggéey bokk na ci jàppale ndaw ñi ba ñu mën a taxawal ab entreprise waaye itam euh, dimbali leen ci yeneen i domaine ngir yombalal leen seen ab am ab xëy Cheikh Tidiane Sarr. dañ koy wooyee centre d'incubation centre d'incubation doon ab barab boo xam ne ndaw yi dañ fay nekk ngir mën tàggatu waaye tamit taxawal li ñuy wax ab entreprise centre d'incubation boobu nag su lu soxal chambre de commerce d'industrie et agriculture bu kaw Kaolack ñoom seen taxawaay fii ci Kaolack moo di Ibasek mooy coordonnateur maison de l'entreprise chambre de commerce bu kaw Kaolack. centre d'incubation bu chambre de commerce bi nag originalité bu mu koy waxee noonu mooy dafa am ñetti pàcc bu si njëkk mooy agroalimentaire mooy lépp lu nga xamante ni dafa jëm si wàllum transformé lu nga xamante ni benn périmètre boo xamante ne chambre de commerce daf ko installé fële si kër Bakar beneen pàcc bi mooy digitalisation et service. gunge ndaw yi jàppale leen tàggat leen ngir ñu am ay financement waaye tamit doon ñoo xam ne danañ mën a taxawal seen yëfi bopp Iba Seck. dañoo gëm ne comme ni ñu koy waxee rek réew réew ëllëg soo bëggee xam nu mu mel ëllëg xoolal ndaw yi nu ñu mel. tey donc si loolu la ñuy yëngu pour former xale yi pour accompagner leen pour que ëllëg ñoom ñu mun a yor suñu économie. si biir centre d'incubation bu chambre de commerce bu kaw Kaolack nag yemuñ ci ndax danañ ci boole ay xeetu tàggatu yoo xam ne ndaw yi tamit danañ ci mën a gis seen bopp bu baax a baax. am na tamit yeneen programme yoo xamante ne am nañ ko fii si chambre de commerce programme boo xamante ne dañuy jël ay nit si formation yi dina am coaching coaching bi mooy dinañu toog di waxtaan ak ñoom di xool ñoom lu xamante ne ñoom soxla nañ ko ñuy woowee ay focus group management wala gestion muy xam comptabilité moo xam approvisionnement moo xam gestion de stock moo xam leadership moo xam communication yooyu yëpp. ñu taxawal ko lu yàgg yàgg fii ci diwaanu Kaolack centre d'incubation boobu nag doon na loo xam ne tey mën nañu wax solution la ngir jàppale ndaw yi ci lu jëm ci taxawal entreprise waaye tamit lépp loo xam ne jëm na ci wàllum formation professionnelle. jaajëf Cheikh Tidiane Sarr dañuy desandi rek mbiru xëyum ndaw ñi ba léegi junjoon nañ leen ko ci bopp Agri Jeunes tekki ndaw ñi ñu lëkkaloo ci ak waa FIDA ak Banque africaine de développement moom groupe gàll ngir dimbali ndaw ñi ci kaw ga ba ñu am ci lu ñu jàpp lañ ci duggal nag ci koppar ma nga toll ci juróom fukki milliards ak ñeent maanaam cinquante quatre milliards ay atam nag na la toll ci juróom benn xamale nañ ko ni ki démb ak kilifa yi ci Kaolack ci kilifteefam moom préfet bu Kaolack ak Cheikh baaba Dieng. ci kilifteefu préfet département bi ànd ak mboolem sous-préfet gox bi woon ci salle de conférence bu nekk ci mairie Kaolack projet bii ñu dippee Agri Jeunes tekki ndaw ñi lañ doon xamale ak kilifa yi. man maa ngi tudd Ndeye Fatou Cissé nekk responsable ciblage genre ak inclusion sociale bu projet Agri Jeunes tekki ndaw ñi projet bi mi ngi tudd Agri Jeunes tekki ndaw ñi soo ko déggee mu nekk projet bu ñu jagleel jeunes yi yan jeunes lañ ko jagleel jeunes yi nga xamante ni ñi ngi nekk ci réewu kaw gi. nguuru Sénégal dafa bëgg naka yemale diggante dëkki taax yi ak dëkki kaw yi ba sax ci wàllum xëy ndax ndaw ñi ci ci dara lii nag projet bi def na ay enquête yu ko ko may ba tax ñu fas yéene taxaw Ndeye Fatou Cissé. dëgg la wàllum liggéey soxal na état du Sénégal soxal na jeunesse sénégalaise yëpp waaye rawatina ñi nga xamante ni fi ñu féete dañuy am jafe-jafe yu bëri bëri ba tax na état du Sénégal ànd ci ay partenaires am ñu woowee FIDA ak Banque africaine de développement taxawal projet bi jàppale les jeunes ruraux ci filières yi ñu woowee les filières agro-sylvo-pastorale et yi nga xamante ni ay milliards yu bëri nag la état bu Sénégal ànd ak BAD banque africaine de développement ak FIDA dugal ko ci bile projet. waaw enveloppe bi état du Sénégal ànd ci ak partenaire am yi mi ngi toll ci cinquante quatre milliards. ay atamit nii la nara a toll. dina jiire juróom-benn at. fii ak deux mille cinq ci la war a jeex incha allah. lii nag mbégte la bu baax ci ndaw yi nga xam ne ñu ngi dëkkee ci monde rural bi jàpp ne bu ñu leen dimbalee ci wàllum xëy dana tax dëkkee kaw yi gune yi di fi toog Elimane Sadji ndaw la dëkkee ci commune Ndiafate. bi yaakaar naa ñëw na ci waxtu bi nga xamante ne ni moom la war a ñëw surtout nag euh, ñu jagleel ko itam ndaw ñi nga xamante ne ñoom moo nekk ci kaw gi ñu jàpp ne projet bi lim ëmb yëpp mooy que wàllu mbéy wàllu càmm euh, fexe ba ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi am ci lu ñu jàpp mun a développer seen localité waaye mun a yor seen bopp am autonomie yaakaar naa projet bi lu ñuy xaar la di tàllal loxo di ñaan yàlla sunu borom mu yeggali ko ba ndaw ñi ci kaw gi ku ci nekk gis sa bopp ba dootul laaj jógee fi dem nooraani dem Dakar wala tey ji nekk ci loo xamante ne nii safaan wala gannaaw département bu Kaolack nag xeetu ndaje yu mel nii ñu ko amal ci Nioro ak ci Guinguinéo waaye it fàttali ne projet bi daluwaayam ci Kaolack kafrin Fatick ak jurbel ci capitale saalum la nekk jaajëf Cheikh Babacar Dieng damay desendik sa micro ci boobule ndaje laajte rek Ndeye Fatou Cissé nan la projet bi tëddee nan la ñu fas yéene gunge xale yi ndax financement yi dina leen yomb ak jafe-jafe yéen ci daan jànkonteel ak ñaata ndaw la ñu ciblé Ndeye Fatou Cissé créé cinquante mille jeunes cinquante mille jeunes yi nag ñu xaajale ci ñaari groupe cible li ñuy woowee vingt mille agri jeunes ak vingt yi nga xamante ni ñoo la ñuy wax les jeunes en insertion formation maanaam vingt mille agripreneurs yi mooy jeunes yi nga xamante ni door nañ dara waaye bëgg nañ ko leen ci kàttanal pour que seen koom-koom yokku wala ñu mën a diversifier seen activité projet boobu dina leen accompagner naka la leen di accompagner dina leen accompagner ci formation waaye dina leen accompagner pour a jotee ci financement yi tax ñu mën a suqali seen activité am moom bi war léegi pour loolu aussi projet bi mettre na en place ay mécanismes yoo xamante ni dina permettre jafe-jafe yi ñu daan teg pour que jeune am accès si financement bi jafe-jafe yooyu dina wàññeeku wala sax ñu teggi ko moom la ñu woowee mutuelle de cautionnement ak police d' assurance agricole pour que mën a accompagner jeune agripreneur boobu mu am accès au financement renforcer ses activités am na ñu ñuy woowee aussi les jeunes en insertion ñooñu ñu ngi toll ci trente mille jeunes jeunes yooyu mooy ñi nga xamante ni amaguñu lu ñu moomal seen bopp commencé guñu lu ñu moomal seen bopp lu ci ëpp si exploitation familiale yi la nekk liggéeyuñu aussi ba am koom-koom bi dellu si ñoom jeune boobu dinañ ko former buñ ko former tëggal ko li ñuy wax projet économique accompagner ko ci jox ko subvention boo xamante ni du xaalis lañ koy jox waaye dañ koy wax lan nga soxla ci matériel intrant équipement projet bi jàppali ko si ànd si ak moom ba moom it mu am autonomisation économique mu am aussi li ma bëgg a bàyyiloo xel aussi muy volet genre bi ak inclusion sociale bi maanaam bëgg nañ projet bi mu liggéey liggéey bu am solo ci autonomisation des femmes ba tax na fu góor amee benn jigéen am fa benn maanaam parité la ñuy appliqué si projet bi 50 pour cent bénéficiaires yi ay jigéen la ñuy nekk am na aussi volet inclusion sociale maanaam couche vulnérable yi nga xamante ni ci ëpp ñoom yi dañuy dund jafe-jafe ñu tax ci réewu kaw gi moom dinañ leen aussi xool naka nañ leen di accompagner moo xam les personnes en situation de handicap la les personnes vivant avec VIH sida wala bépp nit bi ni am na gàllankoor ci feebar wala ci wàllu laago boo xamante ni da koy indi jafe-jafe projet bi dina ko accompagner aussi pour que mu bénéficier wu tamit. kañu toftal Lat Mingué moom it ñëwaat na ci xamle itam ne nañu fexe ba yombal ndaw ñi financement yi ngir ñu a am ab xëy donte nag foofee ca Lat Mingué maire baa ngi ci def ay jéego nga xamante ni fa la ñu ko soxlaa muy milieu rural milieu rural boobu noonu moom moo ñuy permettre ñun jeunes yi nga xamante ni ñoo fii ci kaw gi ñu mën a bénéficier ci programme yu demee noonu ci projet yu demee noonu xam ne projet bi dafa am spécificité bu njëkk projet da daan ñëw lëkkaloo ñëpp boole ñëpp mais bii nag moom dafa ñëw def cible ne dafa ñëw wàcc ci ndaw yi nga xam ne ñoo dëkkee ci gox goxaan yi donc wàcc ci ñoom jàppale leen ba ñoom seen mébét yi nga xamante ñoom ñoo koy am même bu ñu ko mënta tëggal seen bopp tëggal a a jot seen bopp bu ñu rafetlu la ñun ndax si seen commune ci lan méngee jafe-jafe xëy ndaw ñi dafa am waaw du ma ne jafe-jafe xëy ndaw yi am na fa parce que chaque jour ñu ngi ut buntu yoo xamante ndaw yi ñu ngi ci projet bu ñëw

yaakaar ci ndaw ñi gën a dolliwaat yaakaar ci jigéen ñi donc luñ def lu gërëm acteurs yi nga xam ne ñoo ngànk projet bi. maire commune Kër moom la mu ne mooy xalaat bi rafet na lool waaye lay mën a tax ba njariñ la feeñ mooy faw ndaw ñi muñ lu ko mooy du yomb Malick Ndiégane seq na waxtaan moom itam ak Cheikh Babacar Dieng. ñun ci biir liggéey boobu suñu expérience lu mu ñu si may mais gis nañ ne nekk na mbir moo xam ne du yomb bien que xalaat yi rafet na lool mais dañu gis ay mbir yoo xam ne mi si jeunesse bi te jàpp nañ ne tant que loolu euh, dañul pour yëf yi a parce que xam nañ ne jeunesse bi ñoom patience moom daanaka bëri lexuñ ko mënuñu muñ mënuñu muñ wala boog dañuy attaquer benn domaine boo xam ne mun na laaj juróom benn weer ñu bëgg koo def ci benn weer donc bu ñu nekkee foofu di liggéey ñu proposer leen benn projet boo xam ne projet bi dure bi war na nekk un an mais ñoom par impatience dañuy yàkkamte boobu bu ñu fa toogee un mois rek dañ fay romb yëf yi dem seen yoon donc question boobu war nañ ko xoolaat ñaareel ba mooy que yi aussi tamit dafay boo xam toujours ñu gis ne ci man ci sama expérience ba nga xam ne sax day xawal laal côté immigration clandestine bi cause yooyu yëpp da départ yooyu yëpp da ci am solo mais gis nañ ne jeunes yi da ngay gis jeune boo xam ne dafay judd ñu dugal ko daara mais bu ñu ko dugalee daara mais bu jàngee tuuti dafay romb daara ja mu ñëw dugg école tuuti yi léeg-léeg mu dem menuisier métallique bàyyi léeg-léeg mu dem menuisier bois bàyyi léeg-léeg mu def apprenti bàyyi léeg mu ñëw jaay commerce fii Kaolack tuuti bàyyi léeg-léeg mu dem fee ni muy demee Dakar ba mujj sax bëgg dugg ci gaal yi pour dem Europe temps bu ñu suñu analyse lu ñu may boo xoolee délai boobu léeg-léeg jeune bi dina nekk ci intervalle boo xam ne mun na nekk dix ans ci lu mat ay fukki métier ak juróom amul benn métier boo xam ne dina ci am qualification donc jeune boobu dafay mujj retrouver wu ak dooleem doole lay desee parce que toll étape boo xam ne léegi connaissance bi mu waroon a am ak métier waroon a am loolu yëpp amul ci dara ndax def na fukki métier juróom ci dix ans yi mais amul benn qualification donc te imagineel benn choix booy def rek porté ko ci benn métier nga def ci dix ans mais il faut nga am qualification donc jeune boobu bu nekk fekkee ne doole la desee souvent dañ koy utiliser à fin fins parce que lu xew manifestation wala yenn affaires yi mu dugg ca parce que doole la mi ci dafay doole lay yor dafay agir toujours donc jeunes yooyu finalement dootuñu am solution parce que amuñ métier amuñ qualification dañuy dem ci immigration clandestine bi wala boog ñu dugg ci yoo xam ne day indi jafe-jafe kooku noonu war nañ ko koo xaat bu ko defee ñooñu noonu ñu fexee orienté leen ñi jël ay choix yoo xam ne dina leen mën a conduire pour que ñu am benn statut bu ñu mën a am mën a xam réellement li ñu war a def ak li ñu warut a def c'est important. gannaaw maire bu commune Kër Socé dañuy dem ca commune Kër Bakka fekk fa ñu toftal ci maire ba moom it la mu jàpp mooy projet ba am na njëriñ ndax mën naa jàppale ndaw ñi ci wàllu transformation di soppar ñi meññeef yi wala bokk lii di mbayum noor ba nga xam ne rek duñu ñu jéggaate ci leen ca dëkku taax yi Cheikh Ndaw ak Cheikh Ababacar Dieng. projet bi dem ci am mbégte ak jamono ji mu ñëw mu nekk projet bu ñu wooyee projet Agri Jeune boo xam ne ni son excellence le président Macky Sall daf ko indi ngir jàppale ndaw ñi

si dëkku taax lu mel ni Kaolack ki Dakar lu ut beneen liggéey mais liggéey boobu ñëwee seen biir dëkk lañ koy liggéeyee jege seen famille ba nga xam ne lépp lu ñu am dañ ko bokk ak seen famille te dina yombal lépp muy transformation boo xam ne ne vraiment dina am njëriñ ba nga xam ne ne ñi xam ne tey jii moom la wax réew ko euh, li ñuy dundee yëpp si réew koo gi lay jógee boobaa suñu jeunes yooyu noonu dinañ nekk ñoo xam ne ni au dem ba dootu leen am suuf non xam nga projet bi dafa am yemuwaay projet bi dafa am nu tëddee nekkul dañu wax ne ku déposé rek dinañ la jël defal la projet wala ñu financé la mais dafa am sélection si biir sélection boobu nag si la ñuy ñi nga xam ne ñooy meilleur ñi nga xam ne yaakaar nañ ne projet bi bu ñu leen financé dinañ ko mën a doxal parce que loolu daf si am solo projet yu bëri yu fi jaar dañ jël

xelu askanu dëkk yi nga xam ne amaguñu courant ne ci loolu yàggu dara daañu leen yóbbul courant Elimane Sadji ak Cheikh Babacar Dieng. loolu mënut a ñàkk ndax euh, mbir moom du doy teraanga àdduna du doy waaye zone bi ngay wax noonu mu ñu koy woowee zone wala dex bi nga xamante ne nii moo nekk juste à partir de Kër Waly njaay dugg ci biir je pense que mu ëmb lu mot fukki dëkk ak juróom-ñaar c'était pas facile ñun bi ñuy door a ñëw ndax boobu yoon amu fa ci ndimbalu président de la république yombalu madame le maire dem nañ ba nga xamante ne tey na yombalal na leen lépp loo xam ne meññeef la mu doon am ci nawet tey jii ñu ko mun di génnee à muy seen toolu xaal nga xamante ne li ëpp si ñoom moom la dundee ak yenn jàllale nga xam ne dañ ko doon am bu nit waree am doom ñu jëlee ko ci poste de santé kër Laasana bi mu war a génni dem Kaolack wala feneen tey jii loolu yëpp yombal na ko waaye nag xëy na mbir du mot parce que ñu ngi gis ne foofu liggéey bu mu laaj ñun mairie ñun en tant conseil municipal ndox mi foofu suuf yi ànduñu day am yàqu-yàqu kon donc il faut que ñuy owaat état ci ndimbal boobu mu ñëwaat jàpp te bu yàggul conseil municipal bi daje nañ je pense que dina amaat réhabilitation ay defar yoo xam ne nii dina am ci ko yoon du yomb nag parce que askan bi xaar bi jombul beneen bi mooy que ñun bi ñëwee zone boobu mun naa jàpp ne benn école fekkul loon ay mu am ay mur de clôture jàpp naa ne tey école yi nga xamante ne ñoo nekk zone wala de muy Baan Samaan muy Velor Séeréer muy Kër Laasana école yëpp tey ji muré benn école moo fa des muy euh, Kër Soose même pense collecturé nañ lépp quoi kon loolu ay avancé la yoo xamante ne ñu ngi koy def ci dëkk yi ci wàllu courant nag tout le leen di dégg ñuy jooy wàllu courant mais ñëpp xam nañ avancé bi madame le maire ak équipe municipale am def ci wàllu courant ci biir commune parce que tey ji parce que dama leen di wax souvent nañuy xool ci dëkk yi ñu wër ndax tey ji courant nekk na loo xam ne dëkk bu nekk rek bëgg na ko mais tey macha allah xëy na xaar bi jafe na mais dootul yàgg ku ci nekk ci li nga war a jot ci courant incha allah ko jot bitim réew xabaaru bitim réew dañuy dugg ci roppalaanam moom Cheikh Tidiane Sarr ana ci ban réew lañ koy dooree dañ koy dooree ca réew mi ñuy wax euh, Burkina Faso wax ci gouvernement ba buy weddi daal xibaar yi nga xam ne nag jóg na fa jaarale ko ci journal bi ñuy wax événement daal soxna Ndeye Khady jàppal ne daal journal d'investigation bi ñuy wax événement daal moo dëggal ne daal euh, lu tolloog nag ñaar fukki présumé terroriste daal dañ leen bàyyi maanaam libéré leen ñu ko def moo di gouvernement bu Burkina Faso nag ci atum 2020 bi lu nu bi xam ne nag am na ay waxtaan déggoo maanaam négociation jaarale ko ci kuréel gi nga xam ne ay terroriste lañ te ki nga xam ne moom la ñuy wax Iyad Agali jiite ko nag Iyad Agali di chef groupe de soutien bi nga xam ne nag moo soxal islaam ak musulman nag nekk ku ràññoo ko lool ci wàllum terrorisme ci àdduna wërngal këpp nag moom daal jamono ji moom lañ wax ne nag dafa négocier gouvernement bu Burkina Faso wante gouvernement boobule soxna Ndeye Khady jàppal ne daal weddi nañ xibaar bu nu mel jóge ko ci journal d'investigation boobu nga xam ne moom la ñuy wax événement nekk réew mi ñuy wax Burkina Faso xabaar ñu jubali ca càddu wax ci wàccaayu élection présidentielle ya jamono ji liste yi nga xam ne nag moo di candidat yi war a bokk ca élection yooyu dañu war ko amal niki fukki fanak benn ci weeru avril bii di ñëw maanaam 11 avril bii di ñëw jamono ji daal liste boobu xam nañ kana kana ci war a bokk nag yenn ci opposants yi nag jamono ji dañoo mujj daal bàyyi seen candidature yooyu nga xam ne bëggoon nañ ko amal bu ñu sukkandikoo ci cour suprême ba soxna Ndeye Khady daal mi fësal liste bu nu nag jàppal daal ki nga xam ne Talla Dilo ak euh, Masra succès nag ñoom duñ ca bokk ndax daal seen candidature kenn walidewu ko waaye yeneen ci ay candidat toll ci fukk ñoom ñëpp daal jàpp nañ ne mën nañoo bokk ci élection ya jaamaarloo ki nga xam ne moom la ñuy wax Idriss euh, Déby wante ci fukk yooyu nag ñett ci ñoom ñoom nee nañ duñ ca bokk ndax dañoo ragal daal nu ñu def Yaya Dilo ak yeneen ci ay candidat yi nga xam ne commencé nañ leen di final foofu ñu def leen lu nu mel. di njëgu carburant bi essence beeg yu nu mel daal dafa commencé yokk bu baax baax ba ñu bëri ci askan wa nag mer euh, ba futt nag commencé di génn ca mbedd ya soxna Ndeye Khady jàppal ne daal bilan bi foofu la ca réew mi ñuy wax euh, Liban nag euh, ma ngay wéy di am beneen jafe-jafe nag jaarale ko ci crise bi nga xam ne moo dox ci wàllum politique ak koom-koom bi mu nekk beneen taxawaay boo xam ne réew ma am na ko bu weesoo jafe-jafe boobu am ci wàllum koom-koom bi leneen li nga xam ne moo di essence bi dafa yokk ba pour ci prix bi nga xam ne nag moom lay transport bi dem beeg dikk bi nag euh, amal foofu la ca réew ma nag tax ba ñu bëri ci askan ba mer ba futu ñuy génn ca mbedd ya di amal ay jàmmaarloo ak takk der yi waaye tamit di taal ay taal foofu la ca réew ma nag mu nekk beneen taxawaay boo xam ne mën naa indi ay fitna foofu la ca réew mi ñuy wax Liban ak jafe-jafe bi nga xam ne dañul di ko dund soxal wàllum politique. xabaar yi bitim réew. ñu jeexalee ko ca réew mi ñuy wax Gabon wax ci syndicat bi takkee médecin yi foofu ca réew ma nag ñoom dañoo am njàqare daal ci li nga xam ne nag moo di système bi nga xam ne moom lay santé ba di doxee bu baax a baax soxna Ndeye Khady jàppal ne daal foofu la ca Gabon ak mbas mi ñuy wax Covid 19 jamono ji syndicat bi nga xam ne nag moo takkee médecins yi nag ñoom ñooy yëglu jaarale ko ci ab communiqué boo xam ne nag fësal nañ ko di naqarlu bu baax a baax doxalinu wàllum wér-gi-yaram ba yorin ba maanaam foofu la ca réew mi nga xam ne moom la Ali Bongo nekk ca Gabon ñoom daal nee nañ jamono ji foofu la ca hôpital yi nag li nga xam ne moo di oxygène manqué na fa bu baax baax a baax laboratoire tamit naka noonu wàllum garab yi moom nee dañ koy dégg rek ñu gis ne tamit ak tolluwaayu mbas bi di Covid 19 ñeent ci seen naataango yi ñàkk nañ seen bakkan mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne nag teg nañ ko ci taabal fa seene jaamaarloog euh, nguur gi nga xam ne moom la Ali Bongo jiite nekk ca réew mi ñuy wax euh, Gabon. xabaar yi bitim réew. xabaaru tàggat yaram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 Obañ di laale ak Toulouse Beauvais di laale ak Boulogne bu juróom-ñetti waxtu jotee ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom benn Liga espagnole Valence mu lekk ak Villarreal bu juróom-ñetti waxtu jotee ñaar fukkeelu bëccëg bekk ñeent Bundesliga Schalke 04 di laale ak Mainz bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg fanweeri simili démb nag ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom ñeent Premier League ca Angleterre West Bromwich dafa ñàkk ci kanamu Everton benn bal ci dara Fulham daal di ñàkk ci kanamu Tottenham benn bal ci dara lu soxol ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñaara basketball la ñuy waxtaanee ak Égypte bi nga xamante ni moom nee na dootul mën a dalal li nga xamante ni moom mooy Coupe d'Afrique des clubs champion ci wàllum basketball ci jigéen ñi nag réew mu Égypte nag daal dina dëggal xibaar bi ni mel ñu fàttali leen nag xew bi ni mel waroon naa door fukki fan ak ñaar ba ñaar fukki fan ci weeru mars atum deux mille vingt et un kilifa nekk ca Égypte bi ñu jëlee ndogal bi xamal nañu ko FIBA Afrique bi daal di joxe li nga xamante ni moom mooy xibaar bi ni mel ñu waxtaanee wàllum boxe nag ginnaaw bi nga xamante ni CNG des débutants nag zone Dakar di centre une jeex na ca hall stade Léopold Sédar Senghor ñaar fukki boxeur ak ñaar ñoo am seen qualification ngir jëm ci ñaareelu wërngëlu championnat nationaux yi ñëwaat fii ci Kaolack nangaan waxtaane wàllum championnat régional ñetteelu wërngël bi nag Kër Samba ak Zénith démb ku nekk benn bal nga dugal sa morom Gane Sayer daal di am ndam ci kanam Racing ñetti bal ci benn ñu dellu ca France daal di waxtaanee nag bi di Rennes na nooma Stéphane ñii di club René bi nag bu Alfred Gomis daal di ñuy dëggal ne tabbu nañ ki nga xamante ni moom mooy euh, Bruno Genesio mu nekk entraîneur bu bees bu club René ba atum deux mille vingt trois Magog Ndeye Khady gannaaw bu ñu la ñaanalee kendaa yu jàmm li ma gënoon a fa ci xibaaru tàggat yaram yi juma mubarak li ci yéene yi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 halaan bikum hay ñun Sénégal fu ñu jëm bakkan yu rot deret ju tuuru réew mu tàkk moo fi xam ni ki démb allah réew mi yéene kaay ñu ko xamal ñaari doomu aadama faatu nañu rey nañu leen ci doxu ñaxtu yi amoon lépp ngir ñi teggi loxo Ousmane Sonko mi ñu jàpp libération na ko ma wax la ñaar ñu rey nuñ tudd ku njëkk ki Cheikh Ibrahima Koli la tudd balu fetal lañ ko dóor ci dënn mu faatu ca Bignona ñaareel bi Baye Cheikh Diop la tudd xale bu góor bu xam fukkaat ak juróom ñaar moom it fañ koo dóor bal fetal mu faatu ca atelier ba ca yëmbal ndakaaru vox populi na leen bu leen ko wàññi du ñaari nit de ñetti nit a deegum ci fitna ji am Sénégal ñetteel bi benn xale bu jigéen la ñu doon doxu ñaxtu ak ay agresseur ñoo ko song ca Parcelles Assainies ba tax yéene kaay bi na neexut a dégg waaye réewum Sénégal tàkk na deret ji tuuru na ci réewum mi ngi wala ngaam liñ fi gaañ ci ay doomu aadama bëri na ba jéggi dayo libération no lii kay fa jéggi dayo fa ñaaw fa doy waar fa yéeme li Sénégal réew mi yéen a kaay na ko banlieue bu Ndakaaru Pikine nag Géejawaay waaye Parcelles ak ñoom seen fa ñoo meloon ne rek démb lu ma la mënta wax léppu lañ toj lépp lañ taxal ña ñu gën a laal nag mooy magasin Auchan yi presque Auchan yi am ndakaaru yëpp laa wax lépp la ñu tojate sàcc marchandise ya ñu ne déete waay station Total yi é niñ ko def fa ñaaw rajaxe ba mokk jël bagage ya daane pompe si ñuy jaaye essence libération na jàmmarloo yi nag jàppante bi du Ndakaaru rek ak banlieue bi de diiwaan yu bëri Sénégal Bignona Diourbel Ziguinchor Kaolack Ndangaan sax démb yëngal nañu taal ay punu ñoom it di sàkk ñu bàyyi sonko le quotidien yéen a kaay naan wax jot na de war a wax fi toll nii léegi tey mu weesu tiitaanga njàqare la askan wi nekkee yéen a kaay bi na lu ci gën a garaaw mooy télé ak seen fa leen a tëj état bi ñu ne leen dootu leen fi ndax yéen fa ngeen di taxar réew mi a far léegi nag farandoori Ousmane leen waa baax na yow Macky Sall télé yi nga xam ne yow lañ faral muy TFM ak RFM tey ñu dee de fa leen lañ fekk RFM songu leen dal seen kaw taal seen oto ya tojata fa na leen yéen tamit da ngeen a far ak Macky faru leen ak askan wi nga xam xam ne ñoo nekk ci dëgg ñu ne déetawaay Le Soleil mooy journal boobu farak nguur gi ñoom i tamit song nañ leen naka noonu Dakar Actu L'Observateur parce que mi fañ leen a mere de si du quotidien na ko li ci gën a garaaw mooy YouTube fañ ko bloqué démb Sénégal te tey jii sax ñu ngi ragal internet bi ñu dagg ko bloqué ko ndax gaa ñi biñ tëjee Walf Fadjri ak Sen TV terewul ñoom ñu ngi doon jàll ci internet bi Sénégal yi doon leen seetaan ñu ne déetawaay fi a kaay na liberté de la presse fi mu na Sénégal de askan xibaar lu tax ñu leen koy xañ loolu mooy yokk ci xar mi karaw a garaaw laas yéene kaay na carte gi kay fi mu toll ne fa jaxasoo njaga njaay makumba béy mamadou sekk leen seen oto ya fañ ko taal Auchan yi ak total yi ñu jaxase ko tojate ko sàcc marchandise yi yóbbu diw ak suukar ak gaañu baawun dara benn bokk yaakaar farandooru Macky Sall yi ne lu ji njaaga nag Ousmane Sonko mooy njaag ndax moo waral lii yëpp Serigne Fallou Mbacké mel ni ku leen di tontu ne taa ngeen a ragal yàlla kenn du gis dëgg noppi ca wala boog ngay wax la ne lu du dëgg ku nekk xam na ne li am jamono ji Sénégal lu ji njaaga Macky Sall mooy njaag ay yow jàpp nga Ousmane Sonko ci anam goo xam ne jaarut yoon ak xam ak nga salfaañe ko askan wi génn ne du fi xamee ah yow nga toog di seetaan tey njiit réew waxoo dara kon lu ji njaaga mooy njaag ba tax moom Serigne Fallou Mbacké njiital conseil départemental bu Mbacké ne maa ngi sàkku ci ndaw ñi askan wi ñu gën bañ jàmmarloo ak nguur ak Macky gi nga xam ne fa ñoo def ay jaam Le Quotidien yéen a kaay ne attekat bi nga xam ne moo woolu woon Ousmane Sonko Mamadou Seck waroon koo déglu daw na de bàyyi na nee naa ci a loolu L'Observateur na la keroog àllarba bi mu dégloo Ndeye Khady Ndiaye borom salon ba ci la wax na man daal gis nga mbiru Ousmane Sonko yii li ma ci gis daal xaaral man ma génn ci ëllëg kenn du ma wax naan maa def léegi maa def laa te ñu ne déetewaay njabootam famem bi ñoo ko ñaan na ko lii génn ci ndax histoire ëllëg dañ koy nettali ba pare ñu ngi koy menacé di ko tëkku lii da moo tax mu daw génn ci jébbal ko procureur les éco yéen a kaay mel ni ko ko yaa yéey daw de sa loxo yi moo tax bàyyi ko léegi nag ci la ñu jëlee dossier bi mbiru Ousmane Sonko yi jox ko attekat bi ñu wax Samba Sall sa sago Ousmane Sonko na ko waaye yow man fan man ñu téye ma ma nekk ci loxo yoon kon ñëwuma su ngeen bëggoon ma ñëw fa ngeen may bàyyi ma dem sama kër ngeen ooma te su boobaa ma ñëw léegi nag bi mu bañee tey ci àjjuma ji attekat bi Samba Sall nee na ko far force fara force doole mbaam neex naqari da ñëw wuy si ma maanaam fañ koy jëli ji ak doole les écoles yéen a kaay ne te boo moytuut nag bu yegg ca attekat ba mandat de dépôt lañ koy dóor maanaam tey boo moytuut Ousmane Sonko dañ koy tëj na ko si jamono jooju réew mi di tàkk opposition bi waaye yaa naa maar société civile fas yéen a tey ñoom it xamal dox bu ñaxtu kon nag gis ngeen àjjuma tey jii danger boo moytuut lu mësta am Sénégal ci fitna dana fi am yaaw seetal nguur gi nee na doxu ñaxtu yoo yëpp du fi xamee fay jàkkaarloog ñoom ñu ne déetawaay armée bi militaire yi tey fañ leen di génnee ngir ñu dimbale police ak gendarmerie source ay yéen a kaay ñu ko xamal enquête yéen a kaay ne kon nag tey jii xam ngeen lu nar a am Sénégal jamonoy Lat Joor ba façon wa maalaw bañ leen a du jéggi raay ba lu ko raw fi nar a am vox populi ne li fi amagum rek dafa doy sëkk dëkk bi tàkk na ñetti bakkan rot nañ ngir yàlla nañ dakkal lii fitna fa muy tàmbale xam na ko waaye fa muy mujj kenn xamut ko te jamono ji Sénégal adduna bi yëpp a ngi koy xool li ana lu ko la ko xamal ba pare na li am ci réew mi ko Sonatel ak mairie bu Parcelles Assainies gaañe fañ koo lakk daluwaay APR mbaaw ñu rajaxe ko Auchan Nord Foire Parcelles Guédiawaye Kër Massar Icotaf yépp lañ rajaxe les éco yéen a kaay na njiitëram Macky Sall nag démb ci ngoon xamal na réunion ndaje ak ay ponkal ci soldaar si ak ay jege ñaaleem yéen a bi nag xam nga lan la bi nar wane ne moo xamee doole te loi yoon si ñëpp lay dal jëwruñ di dénk wàll bi réew mi ko wax la